الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صوت الإسلام برنامج ديني تقدمه الأئمة والعلماء بالسنغال وفي الميكروفون الإمام عثمان صار وفي تدريس الإمام الهجم بنجاي والإمام الأستاذ علي عمر صار alixwatu wal axwaatu almushahidun assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu imaam assalaamu aleykum waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaaz assalaamu aleykum waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi jàkkaloo ñun gannaaw bi ñu leen nuyoo di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm di ñaan subhaanahu wa taala mi nga xam ne moomam jàmm te mu jàmmal nga am jàmm yanu yaa boole jàmmal wante dañu daal di inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wax naa ne jamono boo déggee kàddu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xamal ne roxu doomu aadama delluwaat na ci borom bi subhanahu wa taala kon kàddu lislaam di leen tàgge di leen ñaan yéen ñëpp ci imam Mouhamad Makhtar cam mu nekk ca semmi ca Matam dem na ci yërmande yàlla ñu leen koy jale yéen ñëpp nag waaye di leen jaale ki nga xam ne mooy yaayu Alaaji Mouhamad Siis Oustaz te mu yor émission bi nga xam ne moo di tontu bataaxal mu it yaayam dafa dem ci yërmande yàlla yal na ko yàlla yërëm yërëm leen yéexee leen waaye di leen jaale ki nga xam ne moo di baaba Jaw jiitoon foofu nga xam ne moo di itoog moom it dem na ci yërmande yàlla ñoo ngi koy jaale ay bokkam yépp di ko jaale tamit gouvernement bi yépp ndax tamit ñoom ñëpp dañoo nekk ñoo xam ne njabootu gouvernement bi lañu kon ñu koy jaale seeni borom seeni mbokk seeni njaboot fii ñu leen faroon ngeen fa yàlla far leen foofule te yàlla xare leen aljannatul firdaws ñu ànd ak ñu baax ñëg yonent yi ak ñoom ñëpp yal yàlla def loolu yàlla mën na ko yal na ko yàlla def kon bokk yi nga xam ne yéen ànd ak ñun ci euh, seen euh, kaddu lislaam ñu ngi ñaanal njiitu réew mi ak ñi koy jàppale yëpp nag di ñaanal njiitu kër gi di RTS ak ñi koy jàppale yëpp di ñaan nag suñu techniciens yi nga xam ne ñoom lañuy ànd ak ba ngeen di mën a seetaan euh, kàddu lislaam ni mu rafetee te sell ca neex leen techniciens yooyu ñi ñi nga xam ñoo ko jiite mooy Adja Daba Kébé di madame si ànd ak Jargay Gay di madame Gay ak ki nga xam ne moo di Seexu Omar Guèye ak euh, Moustapha Sank ak euh, Moustapha Ndiaye waaye ànd ak Ibrahima ak Jibi Fall ak Modou Fall ak surtout Diane seen kon ñoo ñëpp ñu ngi ànd ak ci waxtaan wi di seen kàddu islam ñu leen ñaan yàlla may leen jàmm ju bari ak fan wu gudd gudd wërsëg wu yaatu ak yokku seen service imam bismillah ci li ngeen di bokk yi jàkkaloo ñun alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baay Ousmane ñi ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi lay nuyu di la siyaara di la ndokkeel ci émission yi ni ngi koy taxawee moo xam ci télévision bi la moo xam ci rajo yi di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér di nuyu imaam docteur Alioune Omar Sarr mi nga xam ne moom lañu ñu émission bi moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa Euh, di ko xamal ne xam naa ne ñebbe yeeg yu yu ñoo ko fa téewoon rek ñu di ko bernde mu fàtte waa Dakar waaye yàlla andiwaat na ko tey ci nun moo tax ñu ngi nuyu waa caareen yëpp bàyyiwuñu kenn góor jigéen mag ndaw Baye sumaan di jokk rek ci njaal moomu nga def ci imam boobu fi jóge nga xam ne dafa bokkoon ci association nationale des imams et ulama Sénégal di imam Mohamed Makhtar caam ca Semme nga xam ne imam ka bi nga xam ne moom représenté association bi foofu nga xam ne moom day daw fépp macha allah yal na yàlla guddal fanam moom moo ñu jox xibaar ba moo ñu fa teewaloon teewaay bu rafet ba jox na président bi Omar mu jottali njaalam jox ma man miit ma jottali njaal ci télé ci téléphone bi kon ñu ngi gërëm imam ka ci taxawaayam bu rafet bi mu taxaw foofu ci maatam ci départ ci région bi ci arrondissement bi ak itam ci département bi yëpp kon Baye Ousmane ñu nuyu imaam yi ci Sénégal yëpp nag 14 régions yi ak 46 départements yi di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér di leen tatagal di leen ndokkal ndokkeel di sàkku ci ñoom ñaan rawatina nag ci nawet bii nga xam ne moom lañ jublu yàlla may ñu nawetub jàmm mu commencé ci bismillahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulillahi rabbil alamin waaye yàlla may ñu it mu wàccul nu sunu autorité yi nga xam ne ñoom ñoo jiite Sénégal yàlla may leen ndam comme ni ñu koy ñaanale directeur RTS Pape Alé comme ni nga ko waxee léegi Baye Ousmane ñu jëm ci nag ci weeru mag nga xam ne moo dugg si muy weeru tamxarit muy almuharram nga xam ne dañ ci commencé ca hijratu nabi sallallahu alayhi wa sallam ca gàddaayam nga ñu di ci date li nga xam ne jullit ñi ci lañuy ñuy wax seen historique ci weer wi nga xam ne moom lañu nekk kon weer woowu moo commencé ku ci jullit war a xool fukki weer ak ñaar yi nga dund lan nga ci def ci lu neex yàlla lan nga ci def ci lu naqari yàlla kon bilan jot na ci weer wii ndax nun jullit moom la ñuy datee muy aamul hijri atum gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee Màkka ñëw ma a war waaye muy weer wu màgg nag ci lislaam ndax weer wi bari na ay événement yu baree baree baree bare bari yu ci am nga xam ne bokk na ci ñetti weer yi nga xam ne fukki fan yi sunna la nit ki di ko dundal ci koor ci saraxe ci def lu baax yonent bi sallallahu alayhi wa daf ñu digoon ne fukki fan yu jëkk ci tabaski fukki fan yu bari ngëneel la fukki pan yi fan yu bari xéewal la fukki fan yi mujj itam ci koor fukki fan yu bari xéewal la fukki fan yu bari ngëneel la fukki fan la yoo xam ne lu waaye man danga ci def lu baax waaye fukki fan yii ñu dugg muy fukki xanu muharram itam noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaale woon ñu soppaloo ko jullit ñi ñu ci def lu baax ak di ci wax lu baax moo tax bi mu jógee màkka ñëw medinatul munawwara dafa fekk bisul ashura al ashura min asra maanaam fukki fan yi lañuy ñuy def ashura ci arab ashura mooy fukkeel kon fukkeel boobu yonent bi dafa ñëwoon fekk waa Medina di ko woor yahud yi di ko woor mu ne lan moo tax ñu di ko woor ñu ne bis bii ci la Muusa labale woon Firawna ca ba ma ko toppee ca géej ga kon Muusa woor ko ndax sant yàlla màggal yàlla firawna toppoon ko ak bànnu israil yàlla dem ba def ba ci digg géej ga parce que Moussa soldaar yi ak firawna dañ koo ñatabal ñu daw ba ci géej gi xamuñu nu ñuy def yàlla ne ko sa yet wi nga yor dóor ko ci ndox mi yoon feeñ boo ko dóoree di nga am yoon wu xar firawna jër yet wi dóor ci ndox mi ci gàttal yoonu suuf daal di feeñ Moussa jaar ci maanaam Moussa jël yatam ba dóor ci géej gi yoonu suuf feeñ Moussa jaar ko jaar ci ak bannu Israil bi nga xam ne moom lañ àndaloon firaaw na topp leen buñ dee ba ca digg ndox ma géej gi delluwaat na mu meloon Moussa génn na lap ak ñoona ñoñam ña moo tax ñu ne bis bii ci bisu fukkeel bi ci la loolu amee woon su ko defee nag Moussa bi mu dellusee mu di ko woor ndax màggal yàlla mi nga xam ne moo ko may xéewal googu yonte yàlla Muhammad ñëw bi mu fekk ñu woor moom itam mu woor ko waaye waaye mu ne bu at mi dellu see danaa ko woor muy bisub juróom-ñeenteel ba kon niseru yonant dafay nekk sunna nit def ko looloo tax woor juróom-ñeent ba di sunna waaye woor fukkeel ba itam di sunna kon mbokki jullit ñi ñu xam ne l'islaam ay événement rek la Baay Usmaan ci bis boobu itam wax nañu ne ci la yàlla su ci la sëtu yonente bi sallallahu alayhi sallam ci lañ ko faagaagale woon ca Karbala muy Xuseynu digganteem ak Yazid ibnu Muawiya nga xam ne histoire bu metti la ci jullit mi ndax Baye Ousmane Karbala boobu ndeysaan sunu wayjur wa ni mu ko daan nettalee bàyyi Moustapha Guèye yàlla ko yàlla yaram moom itam da daan daw yaram bis bu jotee rek xel yëpp dañuy delluwaat ci al alaaji Moustapha Gueye al alimul allaama nga xam ne dafa xamoon histoire lislaam xam histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu ko daan waxee ak baat bu neex ba ak ton dicton ba mu daan génne ak ni mu daan génne histoire ba dégg olofam ba kenn mënatu ko yàlla nañu yàlla feyal sunu wayjur woowule muy bàyyi Moustapha Gueye te yàlla yërëm ko ni mu ko daan nettalee ca Karbala mu nekkoon xeex bu métti boo xam ne njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa fa la ñu des ba mu des Ali ak Seynu Abidin Ali ak Zeynab muy ay xale yu ndaw ñoo fa mujj rek ñoo génn échappé mucc ca faagaagaal googu nga xam ne soldaaru Yezid yi def nañ leen ko waaye ci bis boobu bis bu Ashura boobu ci la ñu dagge woon boppu Xuseynu bi nga xam ne dafa nekkoon sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bisub juróom-ñeenteel ba ci la ñu faagaagal woon Xasan ca tooke ba nga xam ne dañ ko joxoon soxnaam ci yenn historien yi jaadata mu tooke xasan nga xam ne ñoom ñaar nekkuñu woon ay seex xasan ak xuseynu nekkuñu ay seex xasan moo magan xuseynu waaye nag faatimatu bintu dafa nefoon ndax un lay magante ak quelques mois la ñu magante waaye xasan moo magan xuseynu Sénégal nag dañ foog na ñaari seex la ñu waaye duñu ñaari seex xasan moo mag xuseynu at ak quelques mois la ko magee kon ci bisum juróom-ñeenteel ba ca lañu ñu xasan mu dee waaye ci bisub fukkeel ba calakar balaa ame ñu dagg bopp xuseynu yóbbul ko Yazid bopp boobu boroom xam-xam yi wuute nañu ci nee nañ ñenn ñi nee nañ bopp ba ma nga Dimashq ca Syrie ñenn ñi ne bopp bi mi ngi Qaahira boo demee am na benn yoon bu ñuy wax Sari Xuseyn am na benn jumaa bu mag buñ fa tabax ñu ne def nañu xabru ñu ne bopp Ousseynou fii lañ ko suul yàlla def nañ yàlla defal nañu noonu dem nañu ba foofa boobu ca Égypte boo demee ca Qahira boo rombee Azhar foofu ngay fekk itam ñoom ñu ne foofu la ñenn ñu ne waaw xalxan macha allah ñu ne bopp bi ñu ngi ko suul Iraq yooyu yëpp ay ixtilaafaat la yoo xam ne ci baynal muluk foofu la joxe waaye daal liñ ci mën a wax mooy bisu asura ci lañu ñu dagge woon bopp Ousseynou nekk surtout yonent bi ci la ñu faagaagale woon itam mhm. jabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. lañ ciy gis yu bari nag mhm. dafa am ñetti taxawaay yoo xam ne asura daf koy taxaw waaye nun biñ ciy topp mooy sunnatu saydina muhammad bi nga xam ne moo ci am muy lan woor juróom-ñeenteel bi woor fukkeel ba kon daal yooyu mooy sunna moom la andi am na yi ci bari yuñ ciy def nag foofu borom xam-xam yi dañ cee wuute ndax ñenn ñi ñu ngi koy jëlee maanaam bégal seen njaboot ci at mu bees mi ñenn ñi ñu ngi koy jëlee kontaan ci ndax dañoo faagagal njabootu yonent bi ñenn ñi ñu ngi koy bëggee ndax kat li nga xam ne moom mooy xuseynu maanaam ñu ngi ciy jàq ndax xuseynu bi nga xam ne nii moom la ñu ci rey kon yi ci man di am daal yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp rek ñu xool ci lii na ñu def ko lu dul na ñu bàyyi ko kon daal foofu la ñuy terminer di jaale nag baaba baay baay Ousmane li nga waxee muy baaba jaw boobu gaañu ca itok ci nekkoon itok nekkoon sunu goro ndax moo nekkoon sunu magu goro bu jigéen bi ñu may sunu doom di ko jaare Boubacar Sissoko ca Thiès ak soxnaam madame Sissoko ñu ngi koy jaare waa Thiès yëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf imaam Alaaji Mbay Njaay ci xalaat bi nga joxe waaye ak uh, li nga wax ci yawmu Ashura ak li nga ci indi ci histoire kon Assane ak Ousseynou ñooñu ñëpp yàlla dafa dogal seen ak faatu mu dajee ci yemu ci bisu tamxarit bisu tamxarit ndax euh, asan ni ko waxee moom euh, jaadata moomule euh, wala soxnaam soosu soxnaam ci boppam moom la ñu ger moo ko tooki soxna su asan moo tooki asan te la asan génnee àddina mu dal ci bisu boobule waaye bu ñu demee nag ba ci yeneen tamxarit yi moo ñëw moo dajeeg Karbala ci la Ousseynou génn àddina ci lañ ko rey jërëjëf imam imam euh, Alioune Oustaz Oumar Sarr bismillah ci li ngeen dil bokk yi jàkkaloo ñun bismillahi arrahmani arrahim والصلاة والسلام على أعظم رسله سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين jërëjëf al Oustaz ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal wér ak wérle di nuyu ak ziyaara suñu xarit al imam Mbaye Ndiaye mi ñu bokkal plateau bi eh, di am mbégte bu màgg ci dellu si eh, bokk ak yéen waxtaan wi eh, di nuyu waa Thiarène comme ni nga ko waxee waaye di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel émission bi ci jamono ju nekk waaye di ci jagleel ay nuyoo ki xam ne mooy Adja Buyo Dieye ak Adja Mam Fatou Dieye waaye duñ fàtte docteur euh, Mbacke Sarr ak euh, ñi nga xam ne daal fu ñu mënta ka nekk ñi ngi ñu ngi sopp di ñu bàyyi xel daañ ci jukki ki nga xam ne mooy al oustaz euh, Cheikh Gaye ca Sënc kon al oustaz ma ànd ak yéen ci njaal yooyu ngeen xam ne ay kilifa wàññeeku nañ yan yàlla yërëm leen te jéggal leen xare leen aljanna eh, ñi nga xam ni itam ñooy kilifa yi yor réew meek yor rajo bi yëpp ak télévision bi ñoo ngi leen di ñaanal yan yàlla may leen ndam ci li ñu yenu eh, comme ni nga ko waxee wala ni ngeen ko waxee ci seen eh, tàmbali waxtaan ñoo ngi ci weer wu màgg mu di mu muy tam xaret kon li fi oustaz euh, tàmbalee walla fi mu daanelee euh, mënuñu génn waxam ju matale ju sell ju rafet jooju nga xam ne euh, waxati ci sax gannaaw dana xaw a jafe waaye li mu tàmbali woon wax ci ne muharram mooy weer wi ñu tànn pour calendrier jullit ñi dinaa ci am lu ma ci yokk rek mooy ki nga xam ne mooy abu moussa al ashari mi nga xam ne moo nekkoon ca basra comme gouverneur moo mujj euh, am xalaat ak def proposition bu mel noonu ndax dafa bind omar ibnu xataab amir al muminin euh, di ko wax ne lettre yi ñuy bind parfois da nga gis ñu ne rek chaabaan euh, wala muharram wala beneen weer mu ne waaye àndut ak benn at loolu lënt lënt la aku faiblesse boo xam ne fokk ñu amal ko pexe ndax su ma ne damaa bind lettre juillet wala juin te defuma ci at dootuñu xam lettre bi kañ la tàmbali proposition boobu ci la Omar ibnul Xataab sukkandiku euh, woo saxaaba yi ñu waxtaan ci ba def ay proposition euh, proposition yooyu amoon na wuute ndax xalaatoon nañ ne est-ce que Euh, calendrier bi duñ ko tàmbalee ci euh, faatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. wala gàddaay gi waaye daal fa nga xam ne euh, fa la mbir yi mujj mooy Omar bi mu waxtaanee ak Ousmane Ibn Affan ak Ali Ibn Abi Talib ci lañ entraîné proposition yi nga xam ne mooy nañu jël datu gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ñu tàmbalee fa muy l'an un niki noonu da nga gis tam ne kon eh, wax na ne muharram dafa bokk ci weer yi nga xam ne dañ leen a xormaal ba borom bi di wax ne bu leen ci eh, bu leen ci jalgati bu leen ci moy bu leen ci xeex waaye itam nekkoon na eh, benn ci ñeenti weer yooyu ñuy wax yoo xam ne ca diina Ibrahim mhm. la wormaal googu tàmbali woon gis nga yàlla li muy def la plupart principe yi duñ soppeeku loolu moo tax lislaam depuis ca suñ maam Ibrahima am na ci yoo xam ne ay ay constante la du du soppeeku ba loolu tax na arab yi malgré jamono yi suñu maam Ibrahima sori na teewul ñi ngi dese woon euh, décide yooyu ci di respecter weer yooyu nga xam ne euh, dañ leen a wormal kon loolu taxoon na ñoom ci seen bopp ñeenti weer yooyu ni kii Zul dhul hijja ak muharram ak rajab eh, daawuñ ci woon a xeex eh, dañ ko daan wormaal lool lool lool donc eh, loolu tax na l'islam ba mu yonente bi alayhi salatu bi mu ñëwee loola confirmation rek moo moo moom la ci alquran andi moom la l'islam andi loolu tax borom bi di wax ne waaye foofu itam gannaaw bi nga xamee ne date nañ ko jëlee ko ci gàddaay yonente bi jël muharram def ko weer wu njëkk dañ ne euh, ñetti mbir mën nañ ko ci génne comme sabab bu tax ñu tànn muharram def ko muy weer bu njëkk mm-hmm. wax nañ ne euh, muharram mooy weer wi njëkk a teru gannaaw bayatul aqaba mm-hmm. muy jaayante boobu yonente bi defoon mu am solo lool nekk dat bu mag mm-hmm. waaye itam muharram euh, mooy weer wi nga xam ne it bu ñu génnee ci aj ba tey mooy mo mo mooy teru mm-hmm. kon loolu jox na ko importance bu mag loolu nga yokk ci itam ñu ne ca jamonoy jahiliya balaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñëw itam mm-hmm. euh, muharram lañ considéré woon mm-hmm. ne mooy début at mi kon loolu yëpp ay argument la yoo xam ne euh, jox na importance muharram kon ni ñu war a màggalee ñeenti weer yi imaam wax na ko léegi muharram kon yàlla dafa insister ci niñ ko war a xormaalee comme ni nga xamee ne ci la Ashura nekk ak liñ ci nettali yépp ci histoire ñu waxoon ne xew na ci euh, kon ni ki noonu dañu andi benn aaya itam pour wax rek toujours ci li nga xam ne mooy calendrier jullit ñi ak at yi ak ni ko xam ne noonu la ko l'islam organisé euh, boo demee ci suratu tawba borom bi subhanahu wa dafay wax ne aoudu min alshaytan arrajim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 borom bi ma ngay wax man na si nasiu ziyadatun fi l kufri loolu eh, dafa dafa ñu andil ne eh, arab yi dañoo am abu jide ci weer yi ñu xormaal tere leen fa ñu xeex fa buñ ci bëggee xeex dañuy daq weer wi mu mel ni ci seen coobare la dépendre waaw muharram ñor ñu ne décidé na ne weer wi du muharram def nañ ko weer wax ci topp woo xam ne dañuy mën a xeex def li nu gënal ci noonu lañ continuer ba calendrier bi nga xam ne moom la yàlla reconnaître ca moom ba mu tabaxee asamaan ak suuf ba léegi loola chamboulé wu daal jaxasoo léegi ñu ne euh, déjà douze mois yi moom discussion amu ci waaye nañ koy jalgate fa dem ba at mi mën a sax yegg ci treize mois te loolu yàlla reconnaître ko kon yàlla ne li mu reconnaître fa moom ba mu bindee asamaan ak suuf mooy li mu dogal ne douze mois yi moo am te itam yonent bi confirmé loolu ci xajjatul wida mu def benn discours bu mag daal di ne istadaara zamanu ka ka hayatihi yow ma xalaqa sama wal mu ne perturbation bi ñu def ci calendrier bi léegi loolu dellu si na tourné na tourné ba dellu si waat ci date normal bi ko yàlla bëggee woon kon loolu kiimaan la bu mag ba tey ndax jalgati yooyu nitu ordinaire mënu koo xam waaye yonent bi moo ne temps bi wër na ba dellu si waat ci calendrier normal bi yàlla tegle woon ba nga xam ne ni mu ko bëggee woon noonu la mel arab yi liñ ko yàqoon lépp génne na ko ci kon loolu itam luñ mën a jàngat la luñ mën a jàngat la ba loolu moo tax calendrier bi di topp weer wi ni muy déroulé ba loolu tax na at mi day yokk 11 jours di di di di di di di avancé ba loolu moo tax saison yi day walbatiku ba moo tax koor geeg eh, at geeg yépp événement yi ñu daté mu mën a ñëw ci beneen saison bu bokkut ak bi nga xam ne daaw ci la nekkoon loolu ñëpp buñ ko seetloo gis nañ ni muy duggante kon xam naa liñ ci bëgg a wax yépp ci gàttal eh, duñ ko ci mën a wax waaye daal ñu xam ne historiquement Abu Musa al Ash'ari yi moo proposé Omar loolu mu waxtaan ci ak sahaaba yi eh, demande ci conseiller Ali ak Ousmane ba ñu fixé date bi ci li nga xam ne mooy gàddaayu yonente bi alayhi assalatu wasalaam te nag bépp nation bépp civilisation bu am importance ci kaw suuf rek fokk mu am calendrier mu am daat loolu euh, euh, la civilisation de l'humanité prouvé na ko ci gàttal foofu laa yem euh, di sant mbokk yi ñu déglu yëpp di amaat mbégte ci dellu si li ci jub yàlla la neex lépp lu ci dëng ci suñu ñàkk fasaha ak ñàkk xam-xam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf imam euh, euh, euh, oustaz Alioune Omar Sarr ci faramfànce bi nga xam ne moom la doon ko faramfànce ak ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak ci télévision bi di lu am na solo mu yemu aswara comme ni mu ko waxee léegi kon ci jamonoy xilaafa Omar Omar Omar Xataab la ci la amee nee na ci proposition Abu Moussa al waaye li may ci yokk rek mooy ne euh, ci biir waxtaan wa Omar ibn Khattab war na leen ne euh, suryaaniya ndax ñoom buñ fi nekk bala ñoo ñëw date suryaaniya la ñuy datee <coughs> wala muy date bii ñuy tuddee datul masih bi gars yi waa ji ci proposition da ca wax ne arab yi amuñu benn dat date bu ñuy datee pour ngiru arab daal amul loolu mën ngaa seet noo koy doxalee yow amirul muminin ci la Omar def benn congrès congrès la woote mooy mu tamar la gars yi ashaaba rasul yëpp ñëw nañu borom xalaat yu rafet yëpp bokk nañu am na ñoo xam ne du ñu saaba waaye ñu jàng ñu xam ndax xam nga la ba Moussa al Ashari ba xam di daj loolu moom bokk nekkuloon ci ashaaba rasul waaye téewul xelam rafet na ñu mel ni moom nag dañ caa bokk ak ashaaba rasul ñoom ñëpp ñu d'accord ne nañu def lii tamar bii lii lañuy génne génnee résultat génne génnee yow mu asora muy datu dulit ñi kon bokk lu laa ci doon njokk ci euh, leeru Alioune Oumar Sarr ak imam Alaji Mbaye Ndiaye ñu wax daal ni kon ji Jibril Ndiaye mu nekk ca Bambey Mariama Mbodj ak Fatim Ndiaye ñu nga nekk ca France ñoom ñëpp euh, ak ki nga xam mooy Karfan Kande mu nekk ca Paris moom ñi ànd ñun waxtu nekk ci li nga xam ne moo di kaddu euh, lislaam di leen ñaanal jàmm waaye ñu ngi ñaanal waa kër gi nga xam ne moo di euh, fii di Thierno Ka nekk directeur bi ak ki nga xam ne mooy Alaaji euh, Mor Jaxate ak ki nga xam ne mooy na Kan ñoo ñëpp ñu ngi ànd ak ñun ci institut islamique bi ñuy defee waxtaani ci Eh, yaatal alal ji docteur Thierno Ka kon ñu ngi leen di ñaanal waaye fàttiwuñu ki nga xam ne eh, mooy Adja Aïda Sy mu nekk ca Sébikotane waaye fàttiwuñu ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Karim Mbacke borom makarimul axlaq ak mboolem ñi ànd ak ñun ci islam kon kaddu islam mi ngi yem fi ak ba beneen alxames ci waxtu incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu